question bi nga xamante ni sama mbokk internet yi posé nañ la ko mooy dañoo gis ne ñaa hmm. dafa dafa bëgg di wanewu de trop hmm. dañoo gis ne ñaa hmm. euh, pratiquement euh, yëpp ci Snapchat bi la koy exposé loolu loo loolu ma fal fàttali la fal moom da ngay ko rek uh-huh. Snapchat bi loolu la loolu bëggee uh-huh. di wane fii laa ne sama shopping lii laay jënd lii nangam ak nangam uh-huh. affaire boo affaire bi xam nga Snap dafa nekk loo xam ne dafa temps affaire la looy def da koy da nga koy publier léegi mu wër àdduna moo sama papa sax mu ñuy lekk moo Snap bi naan ma bàyyil Snap bi ndax ñu lekk mën a rees boo ko sanabee quatre vingt mille nit gis ko te lekk guñ ko. te en bu ñu pensé euh, hmm. Sénégal moom kër bukki la te kër bukki ñàkkul coow. daan nga ko <laughs> liir naa koo liir nag xam man clinique xam man clinique laa juddoo nag boo juddoo clinique da liir programme bi.